sera très basket euh, mondial basket euh, la ñuy euh, njëkkee ak douze gaynde yu ñu xam yu jigéen ñi surtout. voilà ci ñu jigéen ñi nga xam ne ñu ngi waajal ci mondial bi fas yéene am fële ca Espagne. Mhm. Sénégal ki nga xamante ni moo leen di jiite di Cheikh Sarr moom joxe na douze lions yi nga xam ne ñoo fas yéene bokk ci mondial boobu ku ci mel ni maam Jojo Diouf Bintu Diémé Ndeye Khadijatou Dieng Yacine Diop Ndeye Fatou Ndiaye Dalva Oumou Khayri Thiam Astou Traoré Aminata Fall Oumou Khayri Sarr Aïcha Sidibé Maymouna mun Maimouna Diarra ak maam maam Marie Sy ki ci li ñu ci seetlu rek mooy euh, Ndeye Sène bokk ci ñi nga xamante ni moom la Cheikh Sarr tànn pour ñu bokk ci coupe du monde bi fas yéene am fële ca Espagne. voilà donc euh, loolu mooy suñu gaynde yu jigéen yi ak basket bi et toujours basket euh, ci góor ñi Ibrahima Ndiaye Adidas mhm. publié na listu douze gaynde yi nar a dem Lagos. voilà yi waajal ñoom tamit éliminatoire. Euh, coupe du monde bi fas yéene am fële ci Chine ñu koy fas yéene defee fële ca Nigéria li ci mën a jàpp rek mooy euh, ki nga xaman ako voilà on les attend et puis on leur souhaite bonne chance de toute oui. façon ñoom ñëpp c'est de grands champions Gorgui mhm. Thomas pour ne citer que ceux et puis ba tey ci wàllu basket ak euh, gaynde yu ndaw yi mhm. U18 bi tey dañ leen di defaral portrait wu Biram Faye mhm. moom bokk na ci joueurs yi nga xamante ni ñoo gën a wane seen bopp ci afro basket bi ñu doon amal ca Mali effectivement bokk na ci gaynde yu ndaw yi nga xam ne ñoo gënoon xarañ bokk na ci euh, moom Birame Faye ñu ngi ko fekk fële ca Thiès euh, nekk am 18 ans euh, di évoluer fële ca Espagne wax nañu parcours am fi mu jaar ak ni mu def ba rejoindre équipe nationale bu basket moom nag fekk nañ ko fële ca Thiès mën nañ seetaan portrait bi te ñëwaat ci plateau bi. nekkoon avant basket nekkoon naa Xelkom après fi mu naan saw Sow benn jeune ngeen ma pharmacie yooyu gis mu laaj ma da ngay basket ma ne ko. après si la ma kiiwee yóbbu ma Espagne ma nekk euh, benn club bu ñu naan Gran Canaria njëkkoon naa nekk benn club sax bu ñu naan Unicaja après es boobu sama sama basket demeewul woon noonu sax bëgguñu ma nag foofu nag dañ ma dàq quoi kiiwee ñu woon bëgguñu ma après ñu libéré ma Gran Canaria si la ma jëlee nag ba commencé nekk nag euh, formation ba commencé kii si basket bi trop waaw équipe nationale bi xam nga gis nañ samay vidéo YouTube après si lañ ma convoqué ma ñëw xam nga. compétition bi moom baax na trop xam nga ndax gérer euh, nañoo équipe ak collectif euh, tamit mel nañu ay famille quoi xam nga comme sa xamante wuñ sax bu ñu xamante yàggul waaye bu ñu nekkee si groupe ñoo mel ne ay famille xam nga du ñëpp du ñëpp ko waaw ah, xam nga ci lépp liggéeyal ak jàppale sa dëkk jàppale équipe dañoo gérer man kese ka ñëw match ndax cinq cinq personnes yi nekk si match bi jàpp naa si équipe bi jàpp nañ si. basket mhm. bi moom xam nga liggéey dañuy dañuy liggéey rek lu war a ñëw rek dina ñëwal boppam quoi. waa ñëpp loolu lay ñaan kenn ku ne ñaan yàlla indi sa dëkk coupe coupe d'Afrique ma loolu laa ñaan yàlla indi sama dëkk coupe te weesoo gu incha allah. non nekk woon lu difficile ndax nekkoon naa sees di kii euh, di basket après si la ma Omar yóbbu Espagne. dugal ma si euh, may jàng euh, nekk Grand Canada ñu may formé su ma su ma déggee moom moo tax su ma déggee moom moo tax waaw sama idole si basket non man sama idole si basket LeBron sama idole la LeBron James day mhm. jouer NBA Europe tamit am na ay joueurs yu bari kenn ku ne day ñaan yàlla jouer NBA wala nga jouer au niveau loolu lay yàlla moom lépp jox nañu lépp jox nañu war a joxe lépp waaye dañ naan gis nañu arbitre euh, wàllu arbitrage yi ñu demee xam na ak yooyu tamit waaye moom coupe bi moom ñoo ko daanaka kenn mënut a di gagné di gagné il faut ngay perte am la métti euh, lii daf ñuy gën a tax ñu gën a am expérience ci bi mën a gën a yeewu xool lu ñuy doxalee quoi tamit da ciy baax ñu perte tamit ñam defet da ciy baax trop. voilà donc portrait wu euh, Biram Faye euh, uh-huh. moom euh, il a tellement cartonné ci Afrobasket yi passé ca Mali uh-huh. amuñu coupe mais quand même ils ont bien joué c'est vice champion en plus bokk ci cinq majeurs yi li ñu ci gën a seetlu xale la 18 ans la am mi ngi mesuré 2 mètres 08 <laughs> nekkoon di nekk fële di évoluer fële ca Espagne Gran Canaria wax na ko ci reportage bi ñu def leneen li ñu ci gën a seetlu mooy nee na bi li mu duggee ci basket hasard la parce que dañ ko yónni woon dafa jóge daara ñu yónni ko pharmacie dajeeg benn nit mu ne ko yow mu ne ko noonu la ko a yóbbu Espagne moo tax jaarul li jaarul ci benn école de basket fii ci Sénégal. Ah. directement la dem Espagne wax na ko nee na début club bi mbokk bi mu duggoon dañ ko dàqoon mais léegi gis nga ko mu ngi ci beneen club en plus euh, di évoluer bu baax ba ba bokk bari na ay tournois yi nga xam ne bokk na ko ba États-Unis Afrique du Sud euh, jaar fa nekk foo koo xamante ni vraiment xale la espoir la ci basket du Sénégal ku ñu war a mën a suivre la wane na ko ci afro basket bu U18 yi amee woon fële ca Mali. mu hmm. déjà bokk na ci ñi élire cinq majeurs yu nga xamante ni ñooñu ñeent juróom ñi gën a xarañ ci tournoi bi. voilà comme quoi wërsëg moom fu hmm. euh, a même pas de hmm. rek xam naa. mais quand même euh, c'est un grand champion ñu defal leen portrait tey euh, ci euh, yeewu sport et puis.